maa ngi beral ab cant ancien wu parti démocratique sénégalais di gërëm ndaw usiteel yi ñi nga xamante ne ñi leen jiite mooy ñetti secrétaire généraux yi usiteelu commune bu Thiès di baral cantit coordonnateur u ñetti commune d'arrondissement wu Thiès sans penser ci ancien wu parti parti bi ak les cadres et autres mënuñu wax te duñ leen gërëm sas bi ngeen ma sas ak li ngeen ma dénk ba sama rongoñ génn man xam naa fi mu toll suñu borom xam na fan la ma tollu te su neexee yàlla suñu borom yaakaar gi ngeen am si man su ma ko yokkul duma ko wàññi mukk su neexee yàlla suñu borom tey laa gën a gëm li ma gëm tey laa gën a doon li ma doon tey laa gën a nekk encore une fois une montre réglée à l'heure de Maître Wade parce boo ànd ak ay góor laajuloo demandé woo leen ñu yëkkati sas la samay morom baay nekk fi samay moroomu ndey nekk fi samay rek sumay mag sumay xarit ak samay soppee ne la yow la liñ la jox boo ko nanguwul doo doon góor firndeel ngeen ma ko parce que wane ngeen ko ci seen jëfin wane ngeen koy ci seen doxalin kay yéen maa leen saf ngeen saf ma mbir mi safante la puisque puisque mbir mi safante la duñu dem te ñaanaluñu fàttaliwuñu it icône parti bi bi nga xamante ne ñoom la woon démb tey soog a ñaw muy suñu baay la frère feu Boubacar Sall ak suñu yaay ak suñu ñaari yaay yu baax yu fi jógee muy Adja Thiané Lo ak Adja Daba Thiam ku lim di nga juum loolu suñ ko gisee ñu ñëw bàyyi ñu fi nekk ñëpp ne ma masali yow la te ñu jiital dañ laa sas te incha allah rabbi du bedd kenn comme ni ko samay frères yi yëpp jël kàddu wax sama yaay antaloo sama frère Maguette Sarr ñoom Bassani Wade ñoom Thiam ñoom Ndiaga ñoom Aguibou ñoom Birane ñoom Soxna Mbuub ni ko ñëpp waxee tey incha allah rabbi dinañu liggéey la main dans la main parce que juboo moo ñuy may ndam. ànd moo ñu may ndam man nag tàllal loxo ñëpp parce que liggéey jot na nañu wàcc ci terrain bi bàyyi tëju wax ak militants wax ak askan bi pour ñu gagner élection législative yi et pour ñu gagner élection législative yi doole rek moo ñu koy may parce que mbooloo mooy doole parce que yaakaar bi sénégalais amoon ci président Macky Sall ak gouvernement bu tekkiwul dara démb ak tey tas nañu yaakaaru sénégalais yi la preuve foo laal tey mu ngi foo mat deret du fa génn nit ñi xiif nañu askan bi mar nañu école bi doxatul la preuve élection yi résultat wu yi prouvé na ko ñëpp xam nañ tey bac bi suñu doom yi ak suñu rakk yu ko doon def résultat yi catastrophique na BFM bi day waxi noppi kon ñuy laaj fan la réew mi dem war nañu am sax gàcce di génn ay la di ko jox askan bi dëgg la nit ñi amatuñu fu ñu tëdd parce que lekkuñu ba suur seen dépense matatul lépp cher na ci réew mi li koy waral mooy benn alternance crédible moo am Sénégal qui est l'homme de l'histoire qui est bi nga xamante ne askan bi yaakaar nañ ko muy parce que son benn xarit doon na ma wax benn tubaab mu ne ma Massaly vous savez de solution il y en aura toujours et la solution du Sénégal c'est Karim Meïssa Wade gañeegum nañu benn combat mais combat bi des mooy ñu amnistier ko seetal ko huit ñu jëm élection 2019 jël ndam bi installé ko ah, à la présidence incha allah rabbi duma ma jeexal te tudd ñu koo xamante ne bokk na su ma rombee quarante ans wu rañu parti socialiste bi nga xamante ne ndoolaan lañu askan bi mu ñëw moom it yokkaat si ndool bi muy Idrissa Seck parce que ñëpp xam nañu ne le ministre de la jeunesse Mame Mbaye Niang génnee na fi feeñal na fi vingt-quatre comptes bancaires yu Idrissa Seck am ñu koy laaj au lieu que muy nekk di xas walla di teg ci daram lu ñaaw ki nga xamante ne moo ko créé de toute pièce jàppale ko taxaw ko taxawu njabootam muy maître Abdoulaye Wade à la place des prières fu ñu ko war a gërëmee ñaanal ko yàlla yàlla may ko gudd far ak wer mu gungee ñu ba ci kanam. nga koy topp ay xas ak i wax ju ñaaw kooku tey amul leçon de morale politique bu muy jox askanu Sénégal luñ ñu koy laaj mooy moom si boppam su fekkente ne tuumaal ñu koy wax amul ñu ngi koy ñaan mu porter plainte parce que jot na mu giñ Sénégalais yi jot na mu leeral askan bi xamal 74 milliards yu ñu koy tuumaal ak 24 comptes bancaires yu mu am nan la ak naka la parce que nag au de la politique nous sommes des citoyens sénégalais et sénégalaises jot na nag mu leeral askan bi gindi leen ndax ñu xam kon nag mbokk yi maa ngi leen di gërëm it di leen sant ci seen confiance ak nu mu toll incha allahu bi kuy xaar fii laa koy waxee parce que samay morom góor laa nekkal kuy xaar ne Massaly dina bàyyi PDS dem beneen parti politique. da ngay nax sa bopp lu ma am lu ma am Ablaye Wade la nu ma mel Ablaye Wade la nu ma toolu Ablaye Wade la coow li dina bëri lu ne dinañ ko wax lu ne dinañ ko xalaat mais ak sa morom xool sa diggante ak suñu borom xam nga fan la bokk xam naa fu ñu for fan la far que sama lignée man famille bu ma sos famille bu ma bokk muy waa Casamance ku ma xamul su fa demee xam na ñun ay buur lañu xamuñu wor te duñu war mukk ci àdduna li ngeen ma jox encore une fois danaa ko yor comme nu mu waree mais de concert ma ànd ko ñëpp ñu liggéey pour le triomphe du PDS liggéey jot na liggéey jot na liggéey jot na alhamdulilahi rabbil alamin